des candidats. Et je voudrais souligner l'exemplarité de notre démocratie de ce point Que toutes les listes puissent se vérifier les uns des autres et puissent évidemment porter leurs observations à ce qui décident de leur validation. Ça veut D'ailleurs, nous avions fait un point de presse puisque nous avons effectivement notre mandataire qui a également procédé à l'éducation des listes concurrentes. Je ne dirais pas des listes adverses, mais des listes concurrentes. Dans une démocratie, de la concurrence. Et je voudrais, euh, sans plus tarder, dañoo nekk ci période bi nga xam ne commission bi nga xam ne moom mooy jël liste candidature nekk fële ca DGE dafay woo mandataire bu nekk mandataire liste bu nekk pour waxoo la mu gis ci ay liste bu dee am na ay problème ci liste wax na dee liste bi yoon wax na ko bu dee am na ay problème ci këyit yi nga joxe maanaam carte d'identité boo xam ne amul légalisation wala euh, extrait euh, extrait boo xam ne euh, amul dafa périmé wala dumu ta ci casier judiciaire bu am problème la nga war la yoon may nga remplacé ko nga remplacé ko la yoon mayul nag ñu invalidé sëy bi nag ma dem wuyu ji ci convocation bi nga xam ne moom la commission bi yónni fële ca DGE ma dem tamit war naan leen li nga xam ne notification yi nga xam ne moom la ñu ma teg seen loxo mais yi nga xam ne moom la ma laajoon ba andi ca ay tool ba ma pare yoon nag may ñu mën a saytu liste ñi nga xam ne ñooy suñuy concurrent comme ba ma egsee mandataire Yewwi Askan Wi moo fa nekkoon ay listam moo fa nekkoon ma jël ay listam comme moom ni ko yoon mayee tamit na sëy ba jël ay listam sëy li nga xam ne moo nekk ci sa biir la ma gis nag doy waar doy waar lool ndaxte coalition Yewwi Askan Wi vingt-huit listes la déposé ci Sénégal déposé ko bitim réew ci vingt-huit listes yi nga xam ne moom la déposé fii ci Sénégal ma gis ne respecté wuñu parité bi ci quinze départements may fàttali parité dañ koo def pour que ay équilibre mën a am ci institution yi mooy ci conseil municipal mooy ci conseil départemental wala ci assemblée nationale ma fàttali ni dañ koo def pour que benn ndaw bu dee góor bu dee dañ koo fal ab dog-dog dab bu fa jógee góor daf ko mooy remplacer bu dee ab jigéen bu dee dog-dog daf kaa dab jógee fa ak jigéen remplacer ko ñu mën a maintenir. équilibre bi nga xam ne moo la ma gis nag ñoom neneen lañ ko doxale comme dañ ko defee gis na ñoom ñoo jël seen ñu ci woon waaw man ma ci woon ñoom ñoo jëloon responsabilité génne ma gis ne département de Mbour département de Thiès, département Goudon, département Rufisque, département Bambay, département Kaolack, département Kafri, département Fat, département Dakar, département Koungheul, département Belinda, département Mata, département Kolda, département Lugal, département Dakar bi nga xam de dañoo bindee seen bis pour lenn may joxe rek benn exemple boo jëlee ku dox dañooy bind dañooy def titulaire benn góor ci ci topp beneen titulaire benn jigéen ñu ñëw ci suppléant yi jiital jigéen dox ko loolu mooy lu muy wund koy bu musiba amee bu dog amee ka góor ba góor du ko mën a remplacé ku jigéen ka ku jigéen ka jigéen du ko mën loolu nag mooy ak garaawaale ci li nga xam ne moom la xaar ci bari ak ñi ñuy organisé bari ñoom daal dañuy xool bu leen ay bandi lañu loolu nag may wax fii bind naa bataaxal jagleel ko président bi nga xam ne moom moo jiite commission réception des listes de déclaration de candidats. ne ko ay na yëwén kenn mënul recevoir liste yu comme respecté wuñu ci parité bi ñu ngi leen di ñaan ñu bañ a nangu liste coalition Yewwi Askan Wi yooyu parce que encore une fois respecté wu parité xamuñu wu parité dañoo jàpp ni liste yi nu la neexee da koy bindee yaa ma neex da koy bindee te loolu yow daf koo dàq te loolu kenn mënu koo nangu maa ngi leen di gërëm di leen mandataire kon defee ne kii ci wolof yoo ko waxee sàmm réew mi sàmm stabilité réew mi sàmm suñu démocratie te ñu war ko rafetlu aussi ndax exercice yi bariwul fi ñu koy gis rawatina nag ci Afrique kon bu ñu demee tey ba ñun ñu war a xool ñu liste wala ñuy jogante man ñu xool suñuy liste loolu aussi dañu ko war a sànni ñoom nag am nañu droit aussi xool suñuy liste loolu aussi leer a leer la nanu def seen constat lu ñu te gis ñu yóbbu ko fa nga xam ne foofu la ñuy valider bu ko defee la loi s'appliquera